yi ñu gën a nemmeeku mooy wànnent yi nga xam ne dafay ànd ak ay las wànnent yi nga xam ne dafay ànd ak xasan-xasan ci bët yi ñu koy wax L7 katarak euh, yi nga xam ne feebar yi mag la yi nga xamante ni boo xasee ba am juróom fukkee at dafay tàmbali muy presbytie bi nga xamante ni aussi daf lay dab boo amee ñeent fukki at pour booy xool lu jegeek yooyu ak euh, myopie yi ak amétropie yi euh, yooyu lañ fi gën a nemmeeku pour le moment. afetlu nañu ko parce que nit ci soxla nañ ko parce que maa ngi ci taseeg léegi nit koo xam ne vraiment mu ngi woon ak ordonnance am njege naa yoo ko lu tolloog at ndax daf ko laajte ñu wax ko njëg gi mu waññeeku ndax nee na xëy na lekk ak naan la tal mais tey fexe nañu yàlla dimbale na ko ba mu jot ci verre yi nga xamante ni ni président jàppale na ko population pour ñu am ko ba vraiment am na mbégte. te dina tax aussi dina yokk neex-neexu dundam parce que ñepp xam ni la vue c'est la vie. tay dañ fi ñëwoon pour jappalé monsieur euh si consultation gratuite yi mu doon def man je suis là avec des collègues sages-femmes ñuy def euh, dépistage cancer du col en même temps consultation gynéco donc euh, bi ñu commencé suba ak léegi gis nañ fi femme yu bari. Euh, mais mënaguma wax nombre bi parce qu'on n'a pas encore fini en tout cas ci ñi ñu jotta nous gis gis nañ ci ño xamanteni am col am suspect que ni y a un problème le problème bi ndax cancer la ndax du cancer mënaguñ ko wax il va falloir faire des analyses bien yu gëna xoot donc monsieur Niang les a pris en charge pour que ñu yóbbu une clinique vision Koumba bi nek Thiès il va prendre toutes les charges ñu mën len suivre si jamais cancer la ñu mën len traiter inshallah idée automatiquement c'est venu juste dans dama Ça euh, sama xel un si parce que si on toujours man weekend bu budget maa ngi avec la population maa ngi fi ak sama ay militants sama ay sympathisants sama am di jàmm bon ñoom tout le temps je vois que euh, lu may ëpp lu jot si wàllu social si wàllu santé bi la. j'ai réfléchi ma ne moo écoute j'ai appelé mes jeunes j'ai appelé la président dafa non il faut que ma def benn consultation gratuite defoon naa ko en Silema ça fait juste deux ans ba mieux vaut ma def benn boo xam aussi dans la zone nord. si loolu ma décidé gis ay médecins waxtaan ak ñoom yàlla def na sax médecins yi c'est des Thiessois heureusement Dieu merci euh, bi may waxtaan ñoom nag ni ma pare nañu pour def yëpp ma que ko yëpp lu si war a ma prendre en charge mais pour vous dire que affaire bi am na solo lool d'abord euh, bi ma jugee ophtalmologie am na ñoo xam ne dañ leen binduloo ay verre verre bu xam ne ay 200000 francs bee fan nañ ko jëlee te jot na leen seen gratuitement actuellement lu vous dit on a consulté 300 personnes consultant en ophtalmologie mais si wàllu gynécologie aussi c'est important parce que am na lu ñu jot suspect ay ay genre virus yoo xam des gis nañ ko si ay donc pour dire que santé amul amul fay donc man loolu tamit en tant que sama yaram sax du ko permettre may taxu di bàyyi sama ay jigéen am nañ yu mel Euh, donc bu ñuy léegi nañ wax ni ma léegi comment va faire pour les cas man ko jaral na ma sax man ma jaay sama auto sama alal pour def ci sama askan parce que li mënuma ko concevoir ci lolu bon man wax na len man len leen contacter na ben clinique en place man len 50 kay ngeen jé ngeen ngeen ngeen d'abord ngeen suspect yi am 50 pour commencer cinquante cas xaw ma cent la xawma ki man len man gëmm na jaral la ma sax ma jaay sama auto jaay li ma yore sama kër sax def ci santé sama njabot parce que ñi sama ay njabot nañu bon fuma ma ni wuyuma et puis fu lu am luma am tay bi ties ñoom la moo tax. Euh, cinquante yi bon finalement gis naa benn clinique mu ne ma y'a pas de problème comme loolu la euh, ñëw à partir de lundi ñu defal leen des analyses ñu jël en charge bala affaire bi law bu lay musiba la baaxul. parce que santé lu am solo si doomu aadama et puis aussi tamit benn tamit euh, si wàllu mutuelle de santé carnet yi yaakaar naa ne cee Thiès ñëpp xam nañ tey jox naa fi ay junni junni carnet mutuelle de santé jox naa leen ay Thiès pour lan parce que man je tiens beaucoup à la santé parce que ku amul wërgu yaram amoo dara nit mu ngi dox di dem di dox. fekk mu ngi ànd benn jàngoro bu xam ne kenn xamul mu mel. sama mouvement euh, ñetti devis la devis benn bi mooy lan mooy santé éducation ak sociale. àjjuma jot rek maa ngi sama ay sama ay nit sama ay fu mu mënti jot gis ngeen loolu ça fait des xaw ma élection jot na xaw ma élection jotul saa yi ma ñëwee li ma njëkk gis rek mooy ay ordinance dama def analise dama war a def li président ma tiit naa sama yaram lii lii lii ma ne non loolu du ma ko seetaan ñii sama ay nit nañ sama mbokk sama famille nañu bokk loolu moo gën a tax tamit man ma gën accentuer si loolu. si wàllu social tamit gis ngeen loolu di may def social établissement yaa ngi ni tey fi ngeen toll ni tey temps bi maa ko fi def temps bi ngeen ma fi def courant amuñu courant école bi école boo xam ne tey kilifa yu bëri jaar nañ fii amuñu courant man maa fi indi courant bi salle yu bëri maa ko équipé donc pour dire que ñun ñun li ñun duñu waxtu ñun on est des on est des praticiens je tiens beaucoup à remercier le président Macky Sall parce que tey bu dul woon moom tey dina gën a métti si ñun